asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa sëriñ Abibu maa ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Bachiru Lo di nuyu tamit kilifa yi fi nekk yëpp préfet ma seen ko fi sànq ak le ak maire di nuyu sunu rakk yi ak sunu ak mbokki taalibe yi fi jekk yépp di am mbégte bu baax ni nga ko waxee léegi def ndigal boo xam ne dafa jóge ci sëriñ Muntaxa Mbàkke suñ abi bu yan ngaa waxoon ne sëriñ Muntaxa moo wax ñu ñëw teg barab bi ñu am ci mbégte lool ndaxte lépp lu digle rek suñ ko manee dañ ko def suñ ko mënut ñu jéem waaye day fekkit mu gën a ñu gën ca sawar léeg-léeg boo ko mënee te lii ñu man ko sawar ci bi ci jiitu jiit ñu ko ko léegi mooy barab bu daaray sa sëñ daam Abdourahmane Lo la xam ngeen ne daara ji mi ngi ko sañ sañcoon ci 1891 sëñ Touba moo ko joxoon turu daarul alimul xabiir muy ñaari tur yoo xam ne bariwul lu mu koy boole tur yi mu wax daaru yëpp daarul salaam daarul moxti daarul nangam waaye boole ci ñaar yi kon am na lu ci wund euh, beneen bi ci des it junñu ko ko muy sëñ Murtada sëñ Murtada fii la ganee àdduna sëñ daam def ci lu kenn mësul def wala bariwul ndax fanweeri gàtt la ci rey ak ñett dafa tàmbale ci gàmmu gim jàpp ne mooy weeru soxna si ba gàmmu gi dee mu tegaat ca loolu fanweeri gàtt ak ñett euh, sëñ Touba tamit bind turu Mohamed yónnee ko ko mu tuddee ko bi soxna tuuti ñëwee ne ko ah sëñ ndaam lii day tur wi day suñ amoon lu ko dàkkentel dana ci baax mu ne kon def naa ci murtada waaye nag dana dem kon di bàkkante bi de mooy gën a siiw tur kon loolu sëñ daam moo ko def euh, muy sëñ daam di koo xam ne maa ngi wax léegi sëñ Habib ne ko bi mu génnee àdduna ñett ko dugal ci barab ba muy sëñ Fallou sëñ Modou Moustapha ak sëñ Bachir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 waaye lu dul loolu nag amul luñ ko problème lii ngeen di répété Touba ca kanam tubaa ca kaw Touba nangam nag lu ne dégg naa ko ci dafa contre man du ma ko du ma boobu mais ci ñi jàngale nit dafa am ñetti jikko yu ci nekk yoo xam ne daanaka duñ ko jëfandikoo fii benn ñaar yi la jëfandikoo bàyyi bi ca des bi ci njëkk mooy gëm sa bopp bi ci des mooy xam sa bopp bi ci des mooy naw sa bopp ñaar yi moom mucc naa ci mooy gëm sa bopp ak naw sa bopp kooku duma ko def parce que gëm sa bopp mooy lépp loo nekk ku ci nekkut ak yow rek sam noonu la kooku duñ ko def parce que ku ne am nga sa xalaat naw sa boppit mooy boo gisee koy def étage nga amoo lu dul birig sa birig yooyu ngay gën a naw ci tabaxam ba kooku du suñ doxin bi ci des nag moom lu ñuy jéem mooy xam sa bopp lépp lu ñu nekk lu ñu gis lu ñu xam nekk ca waaye buñ ca buñ ca nekkee tamit xooluñu ko ca nekk duñ ca ŋàññ duñ ca wax dañ cay nekk rek loolu rek la noonu rek mooy sunu doxin bu sérieux boo xam ne noonu mooy sunu wax moo tax nag léeg-léeg lu ne nga def kon dafa man lu may def dama koy def direct su ma doon wax lu fekk ngeen ma fu ne mais mosu leen dégg ma wax ci loolu su ma doon la ma am jàmm nag ba wax ko sëñ Muntaxa ne ko man lépp lu ñuy laaj du ma ko def te ci kanam laa ko waxee def naa boobu yéen ñëpp dégg ngeen ko te lu nit di wax ba waxu ci kanam doomu euh, xalif général di murit boobu kafatoo parce que sama principe la te ci sëñ Abdou Lahad laa ko tàmbale woon mais loolu wolof yi nag daf ne du fii du faa du fii fépp kenn sañu ko du fii moom ku ne sañ nga ko waaye du faa nag du fii fépp kooku gor du ko def loolu moo tax lépp lu baax amuñu ci problème ku nekk na ngay maa ngi def lu ne mais mosuma fa gis kenn kenn encouragé wu ma sax te ay centaine de millions laa fay def tuuti mais <laughs> waxuma kenn dara parce que nit ñi amuñu jot xëy na wala intéressé mais lu mu pataasa ma gën a pomme de ko dee sax keneen lu tax ma pomme de terre ma gën <laughs> loolu nañ ko génne ci mentalité su suñu milieu bi société bi dafa bari ay wax lu ne wax ku ne wax jarul ko ku amee rek taw bi du bari ay wax wax wax nit dama daan wax de bu ma masaan wax lu ñaaw dama daan mer parce que xaw ma ko woon mm. mais dem naa bu ma déggul lu ñaaw sax damay provoqué pour ñu xas parce que daf may dolli xam naa daf may tey loolu moo tax fi ñu toll nañu góorgóorlu jéem a def te wax man nag lu toll ne tàppatu laay kenn moom moo ko changé ci samay principe xanaa ma gis lu gën a baax mais nag bu kenn duggati ci dafay def lii dafa nangam du ko def kii suñu rakk la Habib problème kon loolu moo taxoon sax bi ma ñëwee dama ne du toog ci seen ci lii xëy na du cérémonie parce que maanaam bu néew na lu mooy bu ko def lépp lu xew ci njaboot gi ak ci bokk yi danaa ca dem mais damay dàkk balaa ñëw bu paasee ma dem mais du toog ci ñaari lu mel nii rek éviter rek ay dérapage walla yu deme noonu loolu rek la waaye nit laa comme tout le monde bu ko defee ñu kon sant rek xam ne.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 daarul alim la sëñ Touba ko moom moo ko tudde tur bi jox ko sëñ daam Abdourahman man xam naa yéen da ngeen a ñàkk solo sax waaye wóor woon rapide yi na ngeen waroon ngeen ko defal bu yàgg waaw xëy na kon sëñ Mbacke Abdourahman moom Mbacke la ci la waaye dëgg la waaye nag ma indil plan bi ñu xool waaw lan lañ ci mën def waaw loolu rek lañ ci doon lox sëñ bi leen sant bu baax euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu